mu nekk ministre yàlla dogal ma nekk assemblée nationale am fa ñaari mandat muy boroom xam-xam boo xamante ni ñëpp ràññe nañ ko mu liggéey Sénégal liggéey boo xam ni ñëpp mën a teg seen bët yàlla dogal nag li muy dogal ci jamonoy Covid bi mu feebaroon feebar boo xam ne sax jotoon na sax dem faju ji mais teewul mu continuer liggéeyam ba dernier wati budget bi nga xam ne wati nañ ko muy budget Sénégal dernier message am ak député yi ñun ñii. yaakaar naa message boobu ñëpp yëg nañ ko ñëpp dégg nañ ko ñëpp tamit gis nañ ko te yëpp ñoo fa nekkoon opposition ak pouvoir à l'époque ñëpp delloo ko njukkal sargal ko ginnaaw bi nga xamante ni dem na ba yàlla dogal nag mu ñu ñoom ñu jóge ci nguur gi yàlla teg ko ay nattu parce que yàlla mooy teg nattu kenn ku nekk muy feebar ak wér mu daa dem di faju ji fan yii si ginnaaw nag ngeen dégg ay kàddu yoo xamante ni Ousmane Sonko première ministre yëkkati na ko jëmee ko ci Moustapha Ba ci wax ju ñaaw joo xam ne wax na ko ko ci ay kàddu yu ñaaw yoo xam ne jëmee na ko ko ba yàlla dogal tey jii Moustapha Ba jóge fi Moustapha bu moom bi mu fi jógee ba léegi fukki fan a ngi nii ba léegi dencagun ko muy loo xamante ni pour man mérité loolu Moustapha Ba li mu liggéey réew mi ni mu taxawoo réew mi ni mu taxawoo Sénégal ni mu taxawoo kilifa yi. surtout ba Jaxu boobu warul fay jógee juróom fukki fan ba tey état Sénégal nanguwutu jox autorisation pour ñu denc ko yaakaar naa nag loolu war na nañoo mën a bàyyi xel ñi nga xam ñooy population bi ak waa ñooro xam ne seen koor nguur gi moo si tegul loxo pour le moment loolu nag maa ngi demande solennellement le président la Bassirou Diomaye Faye ñu livrer kooru jàmbur ñu dem denc ko ñu ñaanu ko parce que ban gasee kër gi yàgg na te ñu ngi koy xaar foofu noonu fu 2 millions personnes di yeewoo 4 millions di fa par at Touba dafa war a fay ndox parce que li muy ñàkk dafa bari loolu bokk na si li nga xamante ni moo tax ñu bëgg fayloo ndox Touba moo tax ñu indi seen projet boobu nga xamante ni du mujj fenn parce que projet bi baaxul beneen bi gis nañ encore mu ni bu fekkente ni tey jii ñëw na dañu jéem a xool li dakaar di fay ak li Touba di fay nan lañ koy loolu ay naxe la parce que Serigne Moudou Moustapha mooy premier xalifa bi Touba fayul ndox sëriñ Fallou deuxième xalifa bi Touba fayul ndox Serigne ñëw Touba fayul ndox Serigne saaliw Touba fayul ndox alaaji ah, sa sa sa sa alaaji Baara ñëw Touba fayul ndox sëñ Sidi Motaar ñëw Touba fayul ndox lan moo tax ñu yàpp sañ mun taxaa yabel goo xam ni dañ ko li say mag defoon say waajur def ko yow ci sa xalifa daan sàgg sagu Touba ci yow ci sa kanam loolu waa Touba bëgg ko nangu est-ce que loolu jaaru na lu nangulul Macky Sall nanguluñ ko Ablaye Wade duñ ko nangul Ousmane sonk parce que dafa bëgg dindi wormaay Touba pour que maanaam imposé leen ñuy fay ndox comme ni ko Dakar di fay ak yenn ak yenn loolu jaaruwul loolu tamit duñ ko accepté tey duñ ko accepté la loolu bokk na si li tax bëgguñu man Cheikh Abdou Bara ma dellu ensemble pour jàkkaloo ñoom ci loolu parce que na ma ko defoon ak Mansour Faye bi ñu bëggee ni Touba day fay ndox noonu laay continuer di ko def ak ñoom pour ñu Touba du fay ndox ndax kii fayloo ndox Touba ndeyam ju doogul parce que nag Serigne Touba imposé nguuru Sénégal ni ko dindi la situation bi nga tegoon ci courant bi dina subvention bi nga tegoon ci lekk bi mu dind ko mu ne ko nag demal Touba ga nga xamante ne dafa nekk statut spécial nga fexe ba ñuy fay ndox comme ñëpp kooku yaakaar naa duñ ko accepté tey duñ ko se loolu moo tax waa Touba a xamaan ni ñii buñ la Sénégal jëmee ko Touba bukkul ak fa nga fa la war a dem ñu jël seen i responsabilité pour bàyyi xel li man nag du ma waxantu lépp lu ma leen mas a wax bu ñu ko xoolee teg seen bët dana xam ne lii dëgg la parce que amul benn intérêt boo xamante ni ci sama bopp la jëm lépp intérêt département bi lu ma ñàkk tamit xeexal département ak Touba moo ma ko yóbbee kon jàpp naa ni fi ñu jëm nii waa Touba war nañu jëlal seeni i responsabilité xam ne Cheikh Abdou Bara li muy nekk si liste nationale jàmm ak njariñ nekk neuvième position bu ngeen fekkul ba mu dellu assemblée ëllëg bu ñu toroxal Touba ci assemblée nationale du am kenn ku leen défendre ci assemblée nationale parce que ba ñu dee toro ba ba Cheikh Omar Diagne yëkkatee kàddu mel ni man maa taxaw si assemblée nationale si député yi fi nekk yépp wax ak ministre la justice loolu ñëpp teg nañ si bët maa ngi dégg am benn député bu fi nekk boo xamante ni nee na moom jeeg la dafay sëy ak Ousmane ndax benn yoon lay sëy moom sëy na si moom ma koy ñaawlu kàddu yooyu mais nag ku mën a jur sab taaw bàyyi sëñ Touba bàyyi Mohamed bàyyi sa bàyyi tudde ko Ousmane Sonko mboo du sëy Ousmane Sonko yow la concerné loolu moo lay wane bu ñu ko falee mu dem assemblée bu demee day jël jëw Touba jël boppam jëbal ko Ousmane Sonko doo waxal waa Touba bañ nañ ko ba bu ndikkee Touba ci manipulation bi ñu jeex ak jaxase gu métti gi bu ñëwee biir Touba du nangoo teg seen tànk kër Sëriñ Fàllu xaw lu leen waa kër Sëriñ Fàllu def est-ce que doomu Sëriñ Fàllu bi waxoon ni nañu wote xam ne loolu la mere waa kër Sëriñ Fàllu ba ñaar doomu sëñ Fallou nelaw na fi bi mu ñëwee ba léegi jàll jiw kon jàpp naa loolu jëf ju ñaaw la boo xamante ni ñun naqar la nañu beneen bi mooy gis na ni xalifa sëriñ Baara Jenn nelaw na bi mu ñëwee fi tegu fa tànkam dem di jàlle responsable politique am loolu tamit lu ñaaw la ana waa Jenn dañoo bokk ci réew mi lan moo tax maanaam mu humilier bëgg humilier nga xam ñooy seexu sëñ Tuubaa bi mu ñëwee ba mu faloo ba léegi lan moo tax ñu mu dem si kër Baye Fall muy xalifa sëriñ Baye Fall lan moo tax encore bi mu ñëwee kër sëñ sëñ sëñ bu nangu teg tànk ba tey xalifa sëñ Soxaybu muy sëñ Seex Say lan moo waral loolu lan la ko sëñ Seex Say def ba nga xam ne du fa teg tànkam di dem kër sëñ Fallum sëñ Soxaybu lan moo tax bu demee kër sëñ Moustapha Basiru di dem ko sëñ Bas Paraxaan bàyyi kër sëñ Moussa Naawel lan la ko sëñ Moussa Naawel def lan moo waral nangu dem ko sëñ Daamata lan moo waral lan moo waral lan moo waral loolu nag junju doy na boroom xel mooy wan na ni tugul fenn yoon bi tugul fenn kër yi day jaxase jël rak te si kaw mag ñii ñoo ma faloon ñii ñoo faraloon ñii ñoo ma nangam nangam bañ na ko ba mu demee Daaru Mus sax wàccut yow tamit di xumbul ba sëñ ba Daaru Mus yi def déclaration pour aaye sax manifestation foofu lan moo ko war a mooy jaar gam fa jaar ak la nga xam moom la sàggi war may dëkk ba kon jàpp naa loolu na mur yépp xam ni Ousmane sonk mooy première ennemi bu sëñ Touba na ko ñëpp xam parce que ku mën a contre sëñ bi di jël ay kàddu yu ñaaw. ay nit di ko wax nga fat nit kooku noonu yow ki nga xamante ni mooy Samba Ndiaye wax la ay kàddu yu ñaaw nga ne na dàq Samba Ndiaye te waxoon na dàq ki nga xam moo wax si kàddu yu ñaaw Sëñ Tuubaa kooku noonu la ko mën a jàngate mooy dafa defe ni jëmmam moo gën a for jëmmi sëñ bi pour man tey trompe lii mu yor pendant 4 ans cinquant day jeex te Sëñ Tuubaa du jeex bu mukk parce que am na ñu ko ëppoon doole foofu ndooleen songoon sëñ bi te amuñu si ndam dégg naa muy jéem a tontu bi mu fi ñëwee naan moom dañ koy woowee mujjadid mais mujjadid politique la mujjadid bi ñu si xam mooy koo xamante ni diina dafa ràpp nga ñëw du ko yeesal ko sëriñ Tuubaa lu nga xam ko keneen lan moo tax mu ñëw maanaam ba dëkkub sëriñ Tuubaa bi di dambale bopp naan moom mujjadid la waaye mujjadid politicien la te sëriñ Tuubaa rek moo fi mu te mujjadid mooy ku yeesal diine te sëriñ Tuubaa rek lañ fi gis mu yeesal jamono téeméer yi nga xamante ni mooy yaam te noonu la ko noonu la ko diina waxee chaque téeméer at day am ku xam ne da ngay ñëw pour yeesal diina ci sëriñ Tuubaa la du keneen lan moo tax mu naan moom mu mujjadid bi waaw moom la matar yëpp mu jaddi lan loolu bu ko waxee waxul dëgg dégg naa aussi muy tontu fee naan Cheikh Abdou Bara Dolly comme moom xam na ni mu daal sama tur man bondiwu ma samay tànk dëng mais est borom tànk yu dëng war nañu ko pour man non borom tànk yu dëng mooy indi xel mu dëng mooy indi ak jubadi kooku kenn waru ko dénk assemblée national kenn waru ko jox majorité parce que mënul assemblée nationale ay escalier la amul fooy jaar boo sa tànk dëngee doo mën a yéeg kon jàpp naa ne loolu te il faut que maa ñu bàyyi ko xel parce que xam ni Assemblée nationale bu ñu ko joxee borom tànk yu dëng réew mi day gën a dëng kon il faut que tamit ñu bàyyi xel loolu beneen bi dégg naa mu ni voilà suñu mbokk handicap yi da leen di def muy euh, ñuy dox si euh, ñi amuñu ay ba euh, duñ gis ak ñi nga xamante ni amuñu tànk loolu nattub yàlla la ñu ngi li ëpp solo si ñoom mooy seen luwaat bi nga xamante ni mooy tax que bu ñu waree faju faju te duñ fay dara bu ñu waree dugg si biis dugg si biis te maanaam du ñu am benn jafe-jafe loolu lañ bëgg leen ko jàllale waaye tey boo falee tey ji ko yoru puus-puus wala du gis bu ñuy assemblée ay escalier la kenn mënut a yëkkati ab puus-puus di ko jàll amul sax foto yu ñu toog yoo xam ne dañu ko restauré pour handicap loolu bu ko waxee pour naxaate la loo xamante ni ay wax rek la.